vendredi 2 décembre 2022 maa ngi leen di jaajëfal baax a baax kenn ku ne sa tur di leen dalal jàmm ci biir sunu people TV sunu people TV lan wax ba tax na lépp li nga xamante ne ñoŋal na leen wala soxal na leen yi askanu Sénégal dañ leen koy daal di toppal looloo waral nag tey ñu daal def déplacement bu ñu waxee déplacement bëri ay facettes yoo xamante ne mën nañ ko see xaar waaye tey ñu ngi fii buntu Ravin Night Club mu nekk boîte boo xamante ne tubaarkàlla macha allah depuis Ndongolo mu nekk boîte boo xamante ne képp kuy ndaanaan nekk képp kuy ndaanaan am cosaan fii nga xamante ne mooy ci biir Pikine am nga way way bi nag soit bu rafet wala soit mu demee ne waaye jàpp nañ day mës rafet ndax ñi ko fi nga xamante ñoo ko fi tàmbali rafetal nañ ko tubarkàlla masàllaa te ne Jibi Gueye moo fi woo Jibi Gueye mu nekk nit koo xamante ne kenn dootu ko présenté si musique bi nga xamante moom lay def waaye tamit kenn dootu ko présenté si art bi nga xamante moom lay représenté fii ci Sénégal tey nag yegg si nañ tubarkàlla masàllaa vendredi le 2 décembre dañuy si mën wax ju rafet Abdou Aziz Ndiaye mi nga xamante ne mooy doomu nday Bella Abdou Aziz Ndiaye mi nga xamante ne mooy doomu nday DJ Yves tey daal yaakaar naa ni dina neex dina yëngu si ay ambiance waaye laataa ñuy continuer li ma sañ tey ah war na ko <laughs> doy na waar de mo Momo doy na waar de Ndiaye Sarr si suuf Ndiaye Sarr mon ami cher Ndiaye Sarr borom Istanbul Ndiaye Sarr borom Dubaay maa ngi lay jaajëfal baax a baax a baax waaye Rema Création Rema Création bi nga xamante ne moo ma bëgg moo ma yërëm moo ma moo ma moo ma yiir lu rafet rek si man la baax tubarkalla macha allah. acca gars yi bu ko defee ñu teg fa suñu baaraam daal di doxantu ndànk xool sañ say xool xale yi tamit nan lañ fas yéene am yaas. bokkoon classe ñu jël nu. ma xale bii ñëw lu weesu ñu kafree xale bu am yar am teggin am fulam fayda am personnalité ki téye borom këram ku fonk borom këram. ki dimbali borom këram tubarkal la ki nga xamante ni ndeysaan jàmm rek lanu ko dénk te jàmm jooju la am kii togg ba mu baax defar ba mu baax waana nag Aziz Ndiaye tubarkal la ñu naan ko Aziz géwél bu siluy sa tubarkal la bés bii war naa mën a mel nii war naa mën a gis ku ne waana bu ma gisee première dame ndaag mi nga xam ne tubarkal sunu séeri sunu xarit ndeysaan ki ñu yërëm ki ni bëgg ki ni fonk ki ni teg place tubarkalla di togg lu baax tubarkalla waana nag bésu Abdou Aziz nii rek la mën a mel jërëjëf. mi ngi noonu mu nekk Abdou Aziz Ndiaye entrée moo daal di yegg si léegi léegi fi nga xamante ne mooy ravin yaakaar naa ne gis nañ impression yi yi nga xamante ne noonu lañ ko daanee papa nga sànni si tuuti ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax di leen bëggee ni ko maa ba Pikine waxee rek tubarkalla noonu la Abdou Aziz Ndiaye géwél bu silusé suñ ko tuddee bis tuddee nañ ko seen communicateur traditionnel lu Pikine yëpp tubaarkàlla muy koo xamante ni boo ko séenee muy dem bu laajte pikin rek la bëgg moo tax gis nga tey fii ni mel te am na gars yu ñëwagul moo tax ma si biir dina mel ni ñaar dof yu doon football tout suuf ni bii. alors mu nekk li nga xamante ne yaakaar naa ni contentement la Aziz mën nga ñëwee nii. waaw xaaral première dame ñëw ndax kaay. première dame ñëw ñëwal jege. moo ma moo may ñaanal. borom Bambay. di sama xarit naar ah, jóge ba Bambay ndax bis bi waaye nag bu ne woon bëxat ñett ñuy ñibbi ñooy bokk fun jëm muy ñaankatu yàlla bu mag jàppale ma mot sa yow xam nga chaque jour ma wax la sëñ àlla sëñ àlla borom Bambay ñaankatu yàlla bi man ci mat si nag man ci mbër yi daan man ci lu ne sëriñ àlla damaa bëgg nga xam ne kii mooy sëñ àlla nuyu ko ayca mi ngi noonu yaakaar naa ni contentement nga ànd ak Abdou Aziz Ndiaye fi nga xamante ne mooy Raven Night Club avant tout sëñ Alla mbokki àdduna yi ñu ngi leen di siyaar bu baax a baax di leen jox seen wàccuwaay di rafetlu lii dafa rëy ndax euh, ki la bëgg rek yaakaar naa da nga koy sagoo di koy tiitaroo ñun ay xale lan ay ndaw lan ñu mën yi duñu sëriñ ay dongalan xëy na kay moom moo baax rek di ñu wax ay sëriñ yooyu mais dañoo nekk daara ja ba léegi di góorgóorlu Euh, te yaakaar naa nit bu la tuddee bis rek mu jël lépp tegaat ko sa loxo tuddee la ko rek kon yaakaar nga lépp loo doon def da nga war a bàyyi pour ñëw wuyu si ko di bu baax a baax. mais jamono ji fii ñu mënuñoo ñëw ba nem te duñu wax si li nga xamante ne mooy Sénégal ndax am na waxee léegi yaa mën si match yi loolu loolu ñuy dig waaw loolu yàlla dénk mais di waxal Sénégal yëpp euh, lu waay mën a saraxe rek si wàllu fur yi na ko saraxe si kàttanu yàlla suñu borom mën nañoo euh, dimbali si kàttanu yàlla daal lépp luy fur daal na ko Sénégal yëpp saraxe incha allah rek bu ñu ko defee rek jaaxle mën naa ba ñaam acca mu nekk signal la di xaritu ki nga xamante ne mooy Abdou Aziz Ndiaye mais Abdou Aziz Ndiaye ñu ngi lay nuyu di la bàyyi nga nuyu mbokk internet euh, sunu TV ak Fekh TV. maa ngi nuyu Serigne Marine Sey borom taw tawféex nga xam ne moom sama taw tawféex bu lawee nii Serigne Marine Sey borom tawféex tax na waaye nag ma ànd ak Serigne àll di ko gërëm borom Bambay man ci lu bari waaye sama doom ji nga xam ni mooy Issa mooy man man may moom man moom laa bëgg bu ma demee ba màgget boo leen gisul Abdou Aziz Ndiaye géwél bu sudise téye leen Issa le jeune griot de la banlieue suñu président ale anamu waaye nag suñu porte parole dafa taxaw ne dama bëgg mu jige si ma suñu mag relation extérieure muy mot saw waaye naar mooy magi maay jimbo pam ma kumba sama mag teew waaye man ki ma jàppale kenn rek la sama jigéen bi nga xam ne mooy sama sponsor xarisa sama ke boo xoolee sama teen nii mu mel jamono ji <laughs> xam ne nag xarisa <laughs> sama ke la ak sama doomu maam yi ak suma mag ji ak bas choc moo jënd mbasin na ma demal ñaw sama rak bas choc pam kumba suma mag nekk nii waaye ki tax sama xel dal ki tax jaaxlewu ma ki tax fu ma génnee du ma namm dara sëriñ àlla ñang baalo mii la borom ah, ah, ah, tafsir ma njéemee sa maam borom ñaari tafsir yi kii moo ma jàppale. bi gars yi di wut bagage yu bari ma wut sama oño sama oño bu ndaw laa wut mu jàppale ma bëgg sama nday bëgg sama baay teg ma place Mor mooy sunu porte parole waa Ngiwel gaa ngi nii mariyaasin may sa bije may sa bije maar ak ajum naar mi salaamaaleykum jarka demba ca la mbaay jinoo jin jin fara maaren may sa tern daaw mbaay gala daaw mbaay latt jóoba déggan mbaay joori sa déggan mbaay daagu daagu déggan mbaay kuraak faale déggan waale nga sa junneeg mbubu sa rafet na fi mu daanee laay jëlee ci ndaag mii ndaag kaay kaay taxaw ni man maa la ñaani ji woon première dame ñëwal maasal xam nga xam nga xam nga ànd ak artiste yombul ànd ak ku ñëpp bëgg yombul mu toog muñ gumba tëxlu jàppale ñu ku xool Abdou Aziz xam ne ñu ngi koy toppatoo kon nag ndaag loo am ak Aziz yàlla na suñu borom teg loxo di kontaan nag ci guddi gi ndax euh, Jibi Gueye bu nee day sargal Abdou Aziz Ndiaye géwél bi civilisé muy l'ambassadeur de la banlieue muy xale boo xam ne xale bu loxom set fii embouteillage bi ngeen gis nii commencé gul de ndax ñi ñi ngi ci yoon bi di ñëw Abdou Aziz moo ko jar Jibi tamit di xale boo xam ne mooy vraiment euh, macha allah ndax gëm na boppam xam ne moom mooy kan kon su nee day sargal Abdou Aziz Ndiaye ñun géwéli Pikine yëpp dagaloo def une très délégation mooy seen porte parole kon jaadu na ñu def avant première leneen li ci des nag dañ leen jox rendez-vous ci biir bu ñu duggee ñu doog a euh, seetal yenn bagage yeeg yooyu mais daal pour en grosso modo ñun kontaan nañ seen teewaay kontaan nañ ci ni ñu war a ñëw tey di nag wax dëgg yàlla Abdou Aziz Ndiaye bu ñu ko sargalee wàcc na ndax ku ku dul jox cër duñu la jox cër dafa respecté ay magam jox leen cër Paa Makumba ngi nii toog di tambour majeur bu mag di sunu mag kon bu yàlla dogalee tey ñu woo Abdou Aziz Ndiaye géwél yëpp génn ci moom Fadi Samba Keye ngi xale bu am jom nangoo liggéey gëm man ba ma koy xam lu ndaw la gëm boppam nangoo liggéey kon bu suñu borom dogalee li mu dogal dañuy nangu dogal Xadi yàlla na nga egg ni yoon wasalaam alors mu nekk loo xamante ne yaakaar naa ne yéen ñi toog di ñu seetaan war ngeen cee a kontaan waaye Khadija Samake bu ñu gisee Abdou Aziz Ndiaye dañuy gis Khadija Samake Khadija Samake ñu ngi lay nuyu di la bàyyi nga nuyu bokk internetu Fekke TV ak sunu People TV waaw di am kontaante rek ah, Aziz Ndiaye moom yàlla moo booleeg moom del wax xale ci diw. <laughs> muy sama mag di sama xarit bëgg ma dooleel ma jàppale ma tey su ma nekkee pikin tey ba am fa place nit ñi xam ma àdduna xam ma am na ci part de responsabilité boo xam ne daf ko ci dox. mu nekk ku jàpp lool ci sama carrière bëgg ma yéene ma fonk ma respecté ma jox ma cër ku baax ku mu am boole ma ak moom. te jabaram ji yàqu ci dara Aziz Ndiaye damay wax ak moom ba 2 heures du matin ay appel vidéo ndaak tëdd yor doom may wax ak Aziz yaakaar naa loolu cofeel moo ko waral moom day Ndiaye fu ma woo damay dem fuñ ko woo ci àdduna man bu nekkoon feneen sax damay dagg bee fekk ko fa ndax moo ma ji loolu te am contentement rek te xam ne du yomb. moo tax temps yi réew mi yëngu na de ah, Khadija sama kër mais sénégalais kenn gisagu la boobu ba tey lu waral loolu. waaw man dama encadrement bu baax Aziz mooy sama mag nekkul ci benn détail waaw te man tamit mënu ma nekk ci détail ndax ki ma àndal xamul détail loolu la rek. <laughs> alors mi ngoog première dame xanaa euh, au moins di si sànni ay kaddu yoo xamante ne kaddu de fierté la ak contentement. Mhm. ah tout d'abord salaamaaleykum maay remercier ñëpp parce que boo gisee lii rek xam ni voilà. taw ma di wax si micro c'est la première fois sax mais man Aziz su may wax si moom sax mën na ne lu ñu ne sama borom kër la mais lii nii Jibi Gueye xamul sa lim def Djiby li mu def nii balaa muy xam ne xamul li mu def ñu dugg si biir vraiment balaa Djiby Gueye doon ko sargal rek man rek jabaram bëggoon naa koo sargal vraiment nag jëkkër la mag la xarit la lépp la macha allah ñii tamit dañoo baax rek ñoom dañoo baax rek dañoo baax rek vraiment sama sang bi ma sekkal lat ko ma ñetti doomu kurandumee kurandumee misaal insistel insistel dama ci insisté ba mu neex tafsir ma jéeme may wàllu mag bee sa maam ba seedi asman sama ma njëkk doon jumaa jëpp ñu koy wax Demba Ndela Mbay Demba Ndela mi ci birey sama makere Ndela mi ci jaayaan daam mi ci sërif mi ci muslaan kuram mbaayee sayay xalaak machine kook ajarat fa sek la ñuy woowee yaayam waaye nag alaaji Sall nag la ñuy woowee sa aj njallu mbay la ñuy woowee yaayam ma jamalaan ma ji xalxu soose dema maa jigéen ak ci yaasin dema maar yow jiringoo ne maa la be samba sa maam kulli mi ci sengi ndaat géwéli ci ndaat géeri ci ndaat koo ci woone ko maa la be samba sa baaba njëkk a nekk teeñ ca bawal teeñ fa bilangaan nga may sa maam de ma ndaam jug jël séeréel bay sa diggante njuuj ak jaaj pël ma saa sa sago nga fay jaare jaare xuja njaay mi ci jaayaan ah Coumba Faye la ñuy woowee sa yaay ajaratu leen nag la ñuy woowee sa bàjjen ma segalal ko ma ngeen dooba jënd ba kulluma misaan korog ba seeri asma ne cëpp tiwaawa sama am tax si ba ñëwee mbaye ko dalal maam boo ab wàllu la Cheikh Samba Diarra mbaye sa maam Demba ba mbaye sa maam yow maam boo am wàllu maam boo am tax si alxuraan nga ànd yaag wàllu yaan boo ci lekk mu rees alors alors alors alors alors alors alors ñeño taxawal taxawal Aziz taxawal. taxawal Aziz. Aziz taxawal Aziz. Aziz taxawal Aziz. yow sa yëf kenn du ko cof Aziz yow barki Seydina mu xame da ngaa nekk sunu mag doon sunu mag fii Pikine bëgg nu jàppale ñu di ñu jàppale te yàlla tax Aziz Aziz kaani nii kaani kaay kaay taxaw nii li may wax duma ko cof barke sëriñ Baara Mbàkke kii moo jàppale Baba Meng moo jàppale Moustapha Lay moo jàppale Matar moo jàppale Jibi Gueye moo ma jàppale wër na sëriñ Touba Mbàkke di yëkkati xaalisam di ñu ko jox soxla wu si dërëm Aziz taalibe sëriñ Touba bi yow yàlla na yàlla may jàmm waaye dëgg la kii nee naa ko xam nga kii xam nga kii xam nga kii xam nga kii ban xol la yor kii yoru xolu góor ki xolu jigéen la yor lu ko waral na xam lu ko waral mbaaxam bëgg yaayam bëgg ay rakkam di leen jàppal te yàlla tax rakkam bu góor bi mu ko tuddee doom barke Sëriñ Tuubaa Mbàkke dafa def ni mu war a defee jëfe ni jëfe war a jëfee jour boobu noonu barke sëriñ Touba Mbacke ku mu sagal na ko ku teral bokkal na ko waaye nag ñi la mën a mel géwél bu silwisee. alors ñeeño xam naa ne c'est l'émotion waaye dañuy teg foofu suñu baaraam mu duggee ci bi daal di koy yeggali samankee ngi noonu xadisa merci beaucoup aco mi ngi noonu mu nekk loo xamante ni bala wax sama catu baaraam Abdoul Aziz su ñëpp waxee ci moom ma romb ko dugg ci ravin day nuru leneen te ku fekke mu coo som bi nag soo fekkoon na som di weex waaye da koy dolli weex Abdoul Aziz il faut mu baax kun ko tuddee Abdoul Aziz da baax Malick kun ko tuddee Abdoul Aziz mu Sëñ Bamba kun ko tuddee Abdoul Aziz mu Tiwaawan kon Abdoul Aziz il faut mu baax suñ ne fan la bok du ne Pikine du ne Géejawaay banlieue la ñuy wax barki mu danoo daje mu naa ma télé soxna lan la ma ne ko lu dul télé yi dinañ la soxla équipe national Sénégal dañ lay soxla pour ngay wax lu baax ci équipe bi pour ñuy am ndam te man dama bëgg nit ku bëgg naw leen te Aziz dafa bëgg naw leen nawleem waxewunu nag pour lenn pour mu teral ñu wala pour xaalis dañuy wax sunu diggante ak moom dañuy wax te yàlla tax moom Aziz yàlla na eggale barki demboo Ndiaye danoo ànd sunu rakk ji Jibi Gueye dem ci Bass Thioung ñu ne ko Aziz moo moom bis bi Bass Thioung ne bis booba damay éliminer bis bi ma waroon a def ñëw ngir bisu ah, ah, Jibi Gueye ak Aziz ñu dem ci Kéba Seck Kéba Seck ne maas boogaa ma ne ko naam mu ne ma dinaa dem buur dinaa ñëw Almadi waaye bis boobu de bu ma sañoon din fa teew wax lang nga fa war a wax jëf la nga fa war a jëf lépp ngir Jibi Gueye sunu jarbaat sunu doom waaye ak Abdoul Aziz mii nga xëy ni si mooy géwél bu silwise géwél bu silwise nag boo ko déggee silwise buñ jàpp ni ci ay yére la wala ci ay sangu civilité si jikko la ci xol la civilité noble la nit ki bu sa xol rafetee set moo waral ñu ne gëlu civilité kon Abdou Aziz yàlla nga eggale nan tàmbali ci bisimilah rahmaani rahim jeexale ci alhamdulilahi rabil alamin alors merci mu nekk lu am importance ak ak ak ak ak arrière mi nga arrière ñu dox daal di dugaale ak ba ki nga xamante ne mooy Abdou Aziz Ndiaye Abdou Aziz Ndiaye mi nga xamante ne géwél bu civilisé Abdou Aziz Ndiaye mi nga xamante ne sénégalais yi ko bëgg ay Abdou Aziz Ndiaye mi nga xamante ne fu mu fekk rek ah <laughs> fu mu nekk rek day daal di day daal di day daal di doon loo xamante ne day neex waaye nag euh, dafa mel ni heure baa ngi bëgg a jot heure baa bëgg jot la temps que ñi nga xamante ne mooy ay jibi waaw mën nga jël loolu ndax buñ dem bu ñu xoolee dafa mel ni jibi Gueye mooy waaj a yegg si waaye ñii kaay ñu xool ñii kaay ñu xool ñii kan moo suñu anniversaire kaay leen kaay leen kaay leen nañ topp nañ leen topp nañ leen topp topp leen topp leen koj leen koj leen koj leen koj leen koj leen bañ leen ki salaam seen mag baa ngi. ça va bien. merci. noo def <laughs> dara. lipo rek la. lipo. Mhm. tey lu waral sa teewaay. non dañoo damaa ñëw rek ñu tuddee sama jumelle yi sama xarit ma ñëw ànd ñoom gunge leen. dama leen xas de. <laughs> non dama simple rek. Lidia. ah merci. tuddee naa la Samb. mat Sénégal loo si wax ñaata la ñuy dóor. 2-0. waaw. bu dóorul 2-0 dañ lay vaar de xam nga vaar. ma vaaree rek ma xam ne mooy lool rek non non. ok merci. ñaari seex yi moom yéen dama leen xase waa kay waa kay kay dama lay laaj kay alors ñi ngi Khadija Samake Khadija Samake bi nga xamante ne elle n'est plus à présenter sur la mu nekk jigéen boo xamante ne pàcc bu muy yëngu muy jaay diw jaay sama siro mi ñëpp jox nañ ko si bopp Khadija avant tout maa ngi lay nuyu di la bàyyi nga nuyu mbokk internet sunu people TV sama doom ji maa ngi lay nuyu di la ziar waa di am contentement rek tey nekk Khadija Samake international di jaay produit yu baax ci réew mi te xale yi bëgg ma di ma tiitaroo ñu mel na yow mais sama mag ji bu xewlee Abdou Aziz Ndiaye lu ma jàpp dama koy bàyyi parce que Aziz moo ma bëgg moo fonk moo faale moo xam koy xadisa sama képp tey Xadija sama ke fu mu nekk si àdduna bi rek Aziz Ndiaye dafay yóbbu turam kon su xewlee mënuma rek lu dul ñëw assisté ba mu jeex loolu la. mais dañuy dégg ci commentaire yi ñu ne jaaykatu diw yëpp sama Samake moo leen mën te Khadija ba tey génnul def sorti te nee nañ bi fi njëkk am diplôme yow la. waa loolu la man maa génnoon dem gëstu ji am sama xam-xam toog am yoo xam ne mbele mbele coow la waaw jaan buy màtt dëgg du yëglu kon loolu moo am importance waaw. <laughs> mais tey yaakaar naa ne sa kanam gi bu nu ko gisee ambiance lañ ci gis ak ak xol bu neex xol bu feex malgré coow li nga xamante ne bëri na Sénégal. waa coow li lu mu bari bari kenn déggu ci Khadija sama kee Khadija sama kee du nitu détail te tubaar fa kàlla macha allah liggéey bi nekkul ci diw bi rek laa ko njëkkee dama yàgg liggéey yàgg gëm sama bopp yàgg brave waaw kon coowal coow mënul ñëw nii rek ma feeñ ci te ma nekk femme bu brave yàgg liggéey kon xam nga ne moom yooyu munu ma cee nekk. waaw xam naa dañ lay bàyyi teg foofu sunu baaraam bu ko defee nga daal di dugg égale sa sama doom ji kontaan naa waaw. acca <laughs> mi ngoog moomoo mu nekkoon Khadija Samake di ko jaajëfal baax waaye kaay maa ngi gis basi Bassi Bachir Shop Bachir Shop Bachir Shop mi nga xamante ne réew mi ñëpp a ko jox bopp mais Bachir maa ngi lay nuyu di la bàyyi nga nuyu mbokk internet suñu people TV. waaw mais doom day ci loon nekk bàyyi gi am tawféex nam naa leen jaar leen lu bëree bëri yow sama waay nga ndeysaan yàlla na sa jàmm yàgg. te yaakaar naa Aziz nga àndal fi nga xamante ne mooy sargal bi ko Jibi Gueye di def lan nga yëg tey en tant que doomu ndayam en tant que xaritam. yee Aziz moom buñ ko sargalee ñun ñëpp lañ sargal parce que suma mag la. aussi suma xarit la moom yii duma ma koy def man yii du samay affaire du may génn di ay guddeeg yooyu noonu parce que njaboot geeg yooy noonu mais moom mënta xewle lu ma ñëwul parce que moom suma deret la de un mais daf ma wan loolu dafa nekk suma mbokk ba pare nekk suma xarit nekk nit bu baax boo xam ni sagu Pikine la référence de fépp kon nag ku mel noonu boo ko amee ñu dul ay mbokkam sax di ko sagoo yow mi ko moom mu nekk sa deret da nga ko war di tiitaroo kii nit boo xam ne géwél bu gën geer nit boo xam ne day jël xaalis woo géeram jox ko ko pour sagale ko bu ñëwaat géeram jox ko ko nit ku mën nitam a ngi nii Aziz nit ku baax yee yàlla na jaamu yàgg kontaan mais réew mi nee nañ Bachir Shop moo ko téye ndax décembre bu ñu xoolee promo yi am spécial yu spécial nga daal di wootee loolu tamit war ga cee mën a wax waaw mais loolu lépp avec euh, la complicité d'Aziz moo ci moom ci li taxawal loolu ci la bokk parce que birig ba birigam la bitig ba bitigam la ci taaral ci lépp yow nga ciy def participation bu am solo dañuy gis euh, publicité bi dañuy gis lépp te wax dëgg yàlla sa bitig la xam nga loolu mais boo ñëwee mu gën a neex te incha allah di nga ñëw ñu def foofu noonu benn affaire bu gaaraaw baga wàcce bagage yi wane a wane affaire yi nga génne ko Sénégal jot ci parce que ñëpp ci war a jot parce que bitigu dëkk bi la njariñ ñëpp la <laughs> mi ngi noonu Basir Sob yaakaar naa ne gars yi képp ku bëgg yëre yu baax da nga dem seeti Basir Sob Ndiaye Sarr booy bu soofa ngi booy bu wax ne mais Ndiaye Sarr soof nga waaw <laughs> naka temps bi mu ngi baax mi ngi kuul fépp waaw lii Aziz rek moo ko waral jàppale ko rek ci bës bi xam nga sama grand la di ñu conseiller ba ñuy raam di jog ba lépp ñëw tey bu ñu rek dañuy bàyyi lépp tëj place yi ñëw Aziz moo ko waral barke Serigne Touba ragaluñ nag waaw ah. te xuus rek. mais mosoo baara mbay xanaa tey di nga baara mbay. tey damay si fépp. mais Issa sa sañca laay wax yow. ak say dàll. ah. dafa doy waar. di nga sañca dafa rafet. baara saf sàpp may tey. damaa gëj a te fa mu maa ngi nuyu ñëpp di nuyu sama rakk taxaw di Aziz. li may tëggal Mame Ndao Tyson nekk Pikine. papaam jëlee ko yëmbal ñëw yëkkati ko indi ko sama kër may ma ko yóbbu naa ko fu ne fu ne dugal naa ko fa papaam jàpp loxoom ba ci sama saal ni ma Aziz mii doo tux doo naan soxla soxlawoo alalu jàmbur te fonk nga say waajur may naa la ko àdduna ak alaaxira sama néegu biir Aziz moom rek moo dem dugg sama néegu biir jël sama serviette woodoo ko samay doom sax dun dun ko def mu nekk nag rakk ju baax rakk ju ma jox cër ndax nag namu ma salaamaaleykum nag maa ngi sant yàlla bu wér ku ma yëg ma yëg la ku ma yëgul du ma la yëg mais jox na ma cër baax na xam na man maay kan fonk na ma damay toog sama kër sax ñàkk xaalis barki dem moo ci mujj sama doom bu jigéen la jël ins dem jël ko inscrire ko Sidi Nooru Tall yëkkati xaalis fayal ko sama doom ni ko jàngal sa bàyyi li ma defal mu ni ma la ko defal barki dem kon kooku rakk ju baax la bu ko dee sargal mel na ni ñun ñëpp lañu sargal gaa yëpp a ngi taxaw fii ci ravin gii tant que Pape Makumba man ak ni ma men Pikine ba ndongoloo jamonoy ndongoloo laa ci ravin gii ba tey toog nii barke Serigne Babacar Sy ndax moom moo ko jar kon yàlla na ko yàlla defal jàmm ñuy gërëm nag ñëpp di sant sunu mbokk yëpp ah yéen it di leen gërëm télé bi yàlla na gën a nekk ay télé télé yu mag ñu dégg ko fu sori ci barke sëñ Babacar Si ñoo Ale Fall mi nga xamante ne kenn dootu ko présenté ndax moom mooy président des griots wala président des communicateurs fi nga xamante ne mooy ci biir Pikine ñi ngi lay ziare bu baax a baax di la bàyyi nga nuyu mbokk internet sunu People TV waaw mais rek maa ngi lay ziar di la jox sa waay wax dëgg yàlla di ziar tamit waa People TV franchement di am mbégte nag ak contentement bu rëy ci bis bii nga xamante ni Abdou Aziz da koo jël Jibi Gueye tuddee ko ko di ko sargal mu jëlaat lépp delloo ma ko ma jëlaat lépp tamit ànd ceeg waa association des jeunes grio de la banlieue xëy na sax waruma wax ndax porte parole baa ngi nii Mor Mampère ak Naar ak Modou Sow ak gars yi mais franchement daal am na nañu mbégte ak contentement bu rëy wane ni lii mooy Pikine wane ni Pikine benn bopp la kenn mënu koo xar ñaar sunu rakk ngi lii Issa Laye Papa Sala Bigué sunu doom kon wax dëgg yàlla am na nañu mbégte ak contentement sunu xarit sunu doomu ndey Mame Thierno Ndiaye mi ngi nii ak seexu yàlla yi nga xam ni boo gisee nii def. xam ne ci heure ak temps rek lañ ci teg ak maam Corne iPhone ak gaa yëpp yax mbay franchement am mbégte daal la ñu def. yaakaar naa ni ala daw me ne kon dañuy teg foofu sunu baaraam bu ñu duggee daal di a yaatal ci ay woy daal di koy gën a yaatal ci ay ambiance. mais loolu sax moom mooy temps ndax fi mu ne nii olof Njaay nee na njaagum njaagu njaabum gëléem xajul ci pantere kon nan ko téye ba ci kanam. ba dugg ci biir rëppatal ko incha allahu rabi. mi ngi noonu alors seexu yàlla yi mën ngeen ñëwee nii tubaarkàlla sama gars yi doy waar mon très maa ngi lay nuyu di la bàyyi nga nuyu mbokk internet sunu people TV. yaa ñu ngi lay fay bu baax a baax a baax di nuyu waa eh, eh, site internet bi di leen jaajëfal bu baax a baax a baax ah, di la fay encore une fois tamit di leen eh, moom la ñu sargal suñu papa Abdou Aziz Ndiaye Guèwel wax dëgg yàlla nekk suñu papa ju baax la ñu teewal ko ñëw fecc def lu Escap foore loolu la ñu xam. buñ paree daal di laala taxi ndànk ñibbi ndànk lépp silencement lay doon quoi dégg neexul. waa asalaamaaleykum waa Sénégal waa waa Burkina Faso man moom dama tàmm di woo waa Burkina Faso waa Malicounda waa États-Unis waa Amérique waa di wax ne nag xew mi tey du yomb ndax tey ji bi dafa laal dafa laal ku jaralaa muy Abdou Aziz Ndiaye Guèye sunu papa ju baax koo xamante ne dafa gën suñun ndeysaan lu mu deful suñun baaxul dañ fa séenee ñëw nag si biir wàccee ko ba zéro def lu baax bàyyi bon loolu lay demee nag acca acca mi ngi noonu moo très cher maa ngi lay nuyu di la bàyyi nga doog mbokk internet sunu people TV. jàmbaar ñu ngi leen di siyaar bu baax a baax di leen jox seen wàccuwaay maam Thierno Ndiaye waa président vision Sénégal maa ngi leen di nuyu bu baax di leen siyaar di leen jox seen wàccuwaay. te yaakaar naa ne Abdou Aziz Ndiaye leen di sargal nga daal di koy teewal tey sa mbégte si bis bi. waaw loolu yaakaar naa ne dafa leer ku gis ñu ñëw fii waruñu laaj lan moo tax ñu ñëw fii parce que suñu digganteeg moom ñëpp xam nañ ko suñu xarit la suñu digganteek moom du affaire géwal ak géer affaire deret la mag ak rak donc buñ ko ñëwalee rek dafa war. Mmh. acca mu nekk mbégte boo xamante ne peut-être buñ duggee ci biir dinañ ko gën a continuer si ay ambiance ko gën a si li nga xamante ne mooy ay waay. waaw ñu duggee ci biir xëy na lépp dina neex parce que olof Ndiaye dana lu yëngu lu ne la ko yëngal moo këpp doole borom bis bee ni toll te borom bis bi ku ne xam na ni ndaanaan la ci wàllu wii nii. kenn mënu ko nax ci ay way bu ko Jibi Gueye jëlee bis bu toll nii di ko sargal donc Pikine yëpp dafay yëngu. alors c'est très important dañuy teg foofu sunu baaraam bu ñu duggee continuer ko Diorine maa ngi lay nuyu di la bàyyi nga nuyu mbokk internet sunu People waa Aziz dañoo bokk lépp bokk ndey ak baay dañoo bokk lépp maa moom moo tax bis bi il faut que ma ñëw mënu maa ñàkk bañ a ñëw heure bi du ma ko yew di dem fenn ba ma jógee dañ ne ma foo jëm ma a ci Aziz laa jëm waaw Aziz rek moo mën a yëkkati xewle naa ba kaw Kaolack fu ma xewle day ñëw bàyyi léppam Aziz dafa ñàkk ki ñaan te damaa bëgg liggéeyam bii mu nekk nii yàlla na ko si yàlla dimbale ba mu gën a kawe ba mu yegg fa mu war a yegg parce que kat dafa am gërëmal waajur asi dara jomb ko ndeyam gërëm na ko baayam gërëm na ko cat kay yàlla na ko cat seexlu li mu bëgg yàlla na fa yegg yàlla na ko sama borom yeggale mu fekk ko te tal ko ba dimbali li nga xamante ne mu ngi koy xalaat ci diggante waajuram yi yàlla defal ko ko loolu laa koy ñaanal yàlla na ko yàlla musal ci cat yàlla na ko yàlla musal ci cat yàlla na ko yàlla defal jàmm loolu laa koy ñaanal. merci beaucoup mu nekk contentement boo xamante ne nii immense plaisir lañ si àndal waaye Sala Biga ak sama ñaay sama ñaari maestro yéen dama leen di jox micro bi am. <laughs> non non non xam nga xam nga xam nga Issa boo nekkee boo nekkee boo nekkee nit yàlla bind la nga juddoo Pikine màggee Pikine yaroo Pikine c'est lépp di Pikine tey nit. di way ba jékki-jékki centre di la sargal kon am nga loo fi def te Abdou Aziz Ndiaye géwél bi civilisé sunu mag sunu xarit def na lu rëy te ku def lu rëy am lu rëy lii sargal la jibi jibi géey ne na ko juumoo dafoo fi ngaaka parce que boo doon ngaaka di nga xooli feneen wala ak keneen waaye da ko defal koo xamante ni patrimoine la icône la naanaan la wëyli wëyli la borom digestif bi ba mu ñëwee yàgg na yàggul waaye mi ngi ñuy saa su xam nga baax li may wax mu nekk nit ku baax nekk nit ku généreux fu mu jaar yoon la bañ ne ko Abdou Aziz Ndiaye géwél bu civilisé mook suñuy baay la woon ba nit ñu màggee fekk leen ci milieu bi te dara ñaawul waaye waa nag suma frère suma xarit ku baax Aziz Issa si loonee. mën nga ah? waa tey nag Issa vraiment ñun dañoo am contentement ndax li ñu am nii sens la pour ñun ndax yaakaar naa li ñu am nii amaana sunu mag yi taxaw sax xëy na ñoom amuñu ko woon ñun tey bu ñu ñëwee fekk suñuy mag ne ci benn mbir yaatal ñu ci li ñuy def wooñu dugal ñu ci kon ñun loolu sens boobu dañ ko am ñun ñi nga xam ne nii ñooy ñooy génération bi parce que xëy na ñoom sax amuñu woon loolu ñun ñu am ñoom ñu yaatal ñu kon ñun mënuñu lu rek jàng xëy na amaana ñun suñu wax sax mën na bañ a bari ñun nañuy jàng rek. di xool rek di jàng di xool rek yàlla baax na xëy na bis dina jot ñu mokkal ah, apaba te tey naa xamal leen ku yuta neex a jàngal tifli waaye boo baaxe lu baax ngay am du jeex du sa jeex. acca day neex ba jéggi peex. aja mbokk internet sunu People TV sunu gaal 24 ak Sen TV Bagaye Mbaye yegg si la fi nga xamante ne mooy rafet soirée ji liggéey mais Bagaye avant tout ñu bàyyi la nga nuyoog mbokk internet yi lay seetaan. waaw Issa maa ngi lay nuyu maa ngi nuyu xam ne yaa ngi ñuy seetaan am contentement vraiment tey fii ñu daje Ravin du ñu ne guleet ndax Jibi Gueye suma rakk bu baax la ku nekk gis na bërki démb bi ma wootee dafa bàyyi lépp ñëw teewal ma jàpp ci organisation bi. ji dem na sax bañ foog ne fecckat la ci bis bi donc nag kon tey bu amee bis suba ma war a ji Thiès heure bi waroon na ma fekk Thiès mais dama ne gars yi dañuy jaat ba ji gis ñu ñu bégeeg moom soog a jàpp yoon dem Thiès donc di wax ne daal lii lii moo war. Sénégalais yi daal lay wuy fi nga xamante ne mooy succès waaye yaakaar naa ne suba mooy après raxas ndax raxas sonn nga fële nga xamante ne mooy gaynde ah. suba lan ngay nar. waaw suba ñu dem Thiès rek yëngal ko xam nga soppe yee ngi fu ne ci àdduna bi te booba tey ñu ngi ñuy laaj ñu ànd ceeg waa Kajor Events donc war a dem samsu demee bu neexee yàlla bégal waa Thiès di wax ne waa Thiès ñi ngi ñëw nañ ñu xaar incha allah dige bor la. wax dëgg après Thiès nan lañ mën a xaar après lu bari gis nañ li nga xam ne moom mooy salance bi ñu génn jox ko gars yi. ñu commencé ko di ko TikTok après ñu ngi waaj pour defal leen clip bu doy waar pour jox leen ko. mais sa diggante waaw moom yàlla dogal mu bëgg ma rek te yàlla tax ndax bërki démb laa toog mu woo ma téléphone mais lépp dama koy gërëmee Pape Abdou Cissé ndax gars yi ku ma ci soxla dal dalay yombalal lépp Pathé Ciss maa ngi koy nuyu bu baax équipe nationale bi yëpp maa ngi leen di bëggee El suma grand. dañu may woo di wax ak man bu ne te loolu yombul maa ngi leen di ñaanal yàlla defal leen jàmm ah ci li nga xam ne moom mooy mondial bi suñu borom defal leen ñu jël coupe bi yaa jàmm jeew ñi jiili jiili maa ngi di la bàyyi nga nuyu ak mbokk internet yi. sama xarit lay bëggee di leen ziar baax di kontaan seen teewaay bëggee waat bëgg te lan ne lu génne moom mënoo ko lay bañ jàmbaar la jàmbaar la dëkk am na lumu mu demee mais ne saa bu wootee nit ñi bàyyi dañuy bàyyi lépp ñëwal ko parce que moom moo mel noonu dafa baax daa yëg nit daa mën li muy def man nag moom sama xarit la sama bis bi gën a si man mooy bu si da xewlee ci biir du ma seetaan mukk day ñëw moom ma gën a bëgg maa moom dañoo yàgg lu mat ñaari at nañ ko si benn néeg di yéene di bokk taal la bu xewlee maa ngi bëggee instant bi déggante neexul mais naaj yéen it kontaan nañ teewaay parce que mooy li may wax rek fi ngeen mën a ram bëri na mais xeebaloo leen ñu bis bi yàlla na seen jàmm yàgg li bëgg sa affaire yéen a ko xam yàlla moo tali ko taw féex. Aziz kooku dañoo defandoo lépp wax na ko sànq Aziz dañoo defandoo lépp maa ngi moom hmm. Aziz ànd nañ fu ne dem pire. dem kees dem nañ Mbàkke feccal nañ sax jàkkaaroo sëñ Seex Ndigal Fall di ko feccal maak Aziz ngir sëñ Seex Ndigal Fall di ñu ñaanal yàgg sëñ Seex Ndigal yàgg ñoo ñaanal Aziz ku baax la sama xarit la bu ko jibi jibi ngay sargalee man la sargal Thiat yaakaar naa ne buy wax Aziz tamit sa xel dina dem si bool Aziz dañoo yàgg ay jamonoy Pape Bool moodu Bool loolu démb la Pape Bool yàlla na ko yàlla xara àjjana Modou Bool yàlla na ko yàlla xara àjjana ak Aliou Diagne Aliou Diagne yàlla ko yàlla xaraa jënd ñooñu dañoo yàgg samay patron lañ yàgg dëgg la Aziz sama xarit la Jibi Gueye yàlla naa gale ci barke Sëñ Touba. rendez-vous bi waaw Thiat dañuy ñëw ci li nga xamante ni la fois passée xew na ravin muy Latif Diop dégg nga. bi nga xamante ni ñëw na si euh, sa jënd bi yëpp waaye nag yemul ci nag daal di lay daal di yëkkati benn oto may la ko te boobu na sooy góor. mais Waly hmm. la. dèjà te man dara jomb ma man dara jomb ma te le 17 mu ngi sat Amadou Bari Waly Seck le 17. mu ngi stade Amadou Barry lu doy waar le 17 décembre mu ngi stade Amadou bari le 9 décembre Thiat Seck mu ngi ravin. mais Thiat bëggoon nañoo xam ndax oto bi waal daf la ko bettee wala xamoon nga ne daf la ko may. non man man man Fall dara jom ma man bi may njëkk a jënd oto yàgg na ma demaat bañ may ma oto demaat waali may ma oto man li ma war am ñëwagul. te bu ñëwee ma kenn du ma dàq joxe man su ma yoree dina ñëw waa li mu def dañ ko war a sant war koo gërëm wax ko la ko lu baax ku bëgg caat bëgg ko ñëpp jooy ñëpp a kontaan xol yi dafa sedd man dara jomb ma man su ma su ma yoree ñëpp laay defal ku dul ku dul sëñ daa wax ku dul ñuqi doo ñoox waal day waali nit ku baax la waali nit ku baax la teraanga ji ma da koy partagé da koy bokk ak jaam ñi xam nga te li ma waal defal nii man dafa rëy ci man ndawul